gis nga kaw la ndox mu neex dina fa dem parce que loolu jàpp naa ni fii ñu toll mooy li war a jiitu Dakar fii di ko dundee plateau dundee ko Pikine noonu la ñu war a dundee Tivaouane dundee noonu Touba dundee noonu Linguère dundee noonu feneen moo tax politique gu équité bokk ci samay priorité wooteel ma wooteel ma xam nga amateur El Hadj Diouf mi wax léegi El Hadj Diouf xam na lii différence entre amateur ak professionnel xam na ni du ñu sax ay amateur ay spectateur lañu dañoo doon di seetaan di tàccu ndax tollooguñu ñu bëgg def seen professionnel alors que ay amateur lañu élage xal ci gaa yooyu nañu noppi ne nañu arrêté parce que réew du caaxaan man li ma bëgg li ma bëgg nee bu tuute ba tuuti on va créer un million d'emplois mooy bu marché neexulee dama ne su marché neexulee on aura un million d'emplois te bu ma leen ko waxee war ngeen maa gëm su ko waxee war ngeen maa bokkuma ci candidat yi nga xam ni amuñu benn jaar-jaar li ñuy liggéey ba tey ji daal toog di wax rek la réew kenn du ci entrené réew kenn du ci entraîné ku bëgg a entraîné da ngay chef de quartier boo fa jógee nekk maire après nga def yeneen ak yeneen ak yeneen mais yow defoo dara mosoo liggéey dara xëy rek ne dama bëgg nekk président ndax Pikine dina ko nangu ndax Pikine dina ko nangu su ma utalee nag xale liggéey ba pare ci jigéen ñi lay jublu s'il vous plaît xam nga xam soxla jigéen ñi